conférence de presse El Hadj Ahmed Aïdara bismillah heure bi jot na de ngir na ñu def attention jàngoro jàngay law de dëgg la ubbi tribune yéene kaay dañu gis nga yëmbal ak Grand Yoff de waaw dama ne la ay bomb la yoo xam ne nag war nañ leen a surveiller loolu dëgg lu tolloo fukk ak ñeent ci ay cas communautaire ñoo xam ne nag maanaam xamuñu fan lañ dëggee jàngoro jooju loolu am Allahu akbar jege ne téeméeri doomu aadama yoo xam ne fi mu nekk nii kon dugal nañ leen turux de confiné leen denc leen yéene kaay gi de te gis nga nag maanaam matukaay yi nga xam ne kon moom la ñu war a jël de ngir fàggandiku waaw sénégalais dañu koo football te ko neex maar day tali waaw parce que gouvernement bi kon dana heure huit heures ci guddi bu jotee eh, na ñëpp dugg tëdd waaw couvre-feu eh, Grand Yoff Parcelles Assainies ak yeneen gox waaw respecté wuñu ko meeru yëmbal de di baara gay eh. nee na nguur gi ci boppam kon moo war a génnee yat wax loolu dëgg ca robokum waaw nee na nguur gi ci boppam kon bu bëggee jël lépp daal di koy lan na ci ndodd comportement sénégalais waaw comportement sénégalais ñëng na ñëng fatiti fatata loolee nguur gi ci boppam kon dafa bëgg a daw de chef ci de responsabilité la waaye Moussa Adjili la wax de le quotidien yéene kaay ne ñi nga xam ne kon dañoo feebar te xamuñu fan lañ ko jëlee cas communautaire yi dee waaw Touba dee kii eh, tànge duggaat na fa dee ci wàllaate woo xam ne kon mën naa yaatu lool maa di tàlli waaw parce que médecin chef ca njaareem dee nee na gis nga Touba waaw ndigal li nga da koy joxe dee dañu koo respecté wul maa di tàlli waaw lu tolloo fukki kaa ak ñaar amaat na kon ci diwaanu guddi liggéey laas ñaar fukki doomu aadama dee dégg nañ jàngoro ji te xamuñu fan lañ ko jëlee kaa communautaire Touba ak Ndakaaru njaajël Joob ñaari kër yu tàng yaa ngi nii libération yi kaa ne tasaaroo nga xam ne nag maanaam kaa communautaire yi kon tasaaroo dee gis nga Dakar Ndiagel il faut ñu ko non taxawu ko nag laa wax si ñaari fan waaw Dakar laal na ñaari téeméer ñoo xam ne jàngoro ji daal na leen fukk ak juróom ñaar ñoo xam ne kon communautaire la ñoo professeur Moussa Seydi waaw ne takk leen masque yi takk leen masque yi takk leen masque yi ay takk leen masque yi le soleil yéene kaay yi nga xam ne nag maanaam ñoom la jàngoro ji gën a laal de Dakar Ndiagel Diop Tambacounda Louga ak Ndiarème dëgg la Abdoulaye Diouf Sarr ci Sud Quotidien waaw nee na comité bi nga xam ne moom lañ ci teg de ngir muy Pape Mbass yilée waaw bu sàkkoo ci président Macky Sall confinement total ñu fot nit ñi président da koy def looluy dëgg de yéene kaa gi ne en tout cas société civile ba dee waaw dox nañu ci kaw nguur gi ngir na mbir mi leer ñu leer ba leer mi ko tijjee nee na séddale wàllu dund googee waaw gaa ñaa ngay taxawal benn comité de de ah, pilotage nee na ca nga nga xam ne seen loxo dafa jotul seen ginnaaw waaw waa nguur gi de ñu ngi kattanal gouverneur yi nag laa la wax ngir ñu surveiller maire yi maire di lay sàkku nag ngir préfet ak sous préfet té ba ci ñi nga xam ne ay opposant lañu àndu ñoo maire yi nañ leen boole kon dund googee waa yaanaa maar ci tribune yéen kaay waaw gis nga yoruñ gu gi dee booloo bi xam ne kon farata la ngir daan xeex bi lé yoruñ gu gi yàq na booloo ba maar di tali waaw critique yéen kaay ne Alioune Ndoye dee ñu ngi koy tuumaale ne waa parti socialiste dong lay jox nag maanaam ca dund ko eh samba tribune yéen kaay la ay conseil municipal moom day dana indi nag ay gindi tey jëlee ci coow lii les si ko yéene kaay ngay gis nga coow loolee waaw urbaine d'entreprise bu Diop ko ca avril 2019 rek laa la wax yéene kaay gi ne gis nga Parcelles Assainies waaw Moussa si coow topp na ko de waaw ma ne la ba ca boppam kon mi koy dànkaa fu Aliou Sane yaana maar si tribune yéene waaw nga dama ne gis nga passation marché yi ña gañ a marché yaag ba ñañ jox marché ya waaye yaa bari dana nguur ga da caa indiwul ñoo wax te ñaari ministre yooyu yëpp seen wax yi nekkul benn ministre bi daa wax jaar nii ministre bee wax jaar na ca def aha Aliou Sané yaana maar ne waaw te président Macky Sall ci boppam kon daa war a indi ay gindi ci dépense nga xam ni kon defagum nañ ko ni lée chef de transport bi ba ci waa kër docteur lañ leen jox évidence seene kaay ne Aliou Sall pétrole Monsoor Omer Seck scandale donoar yow joowal la la wax ay scandale ci kaw scandale lii Mari Sagna ci exclusive yéenekaay waaw ne gis nga Macky Sall njabootam ñi bokk ci parteem waaw sénégalais yi intéressé wuñ leen yëngaluñ leen sax ñoom daal li leen intéressé mooy ñuy dundee nit yi te bañ a dundal nit rek te loolee c'est choquant scandale la ci Mari si ni ñuy wax du ci dara Diop si du ci dara yéenekaay gi ne Rayane de naar ba ca ceeb yo waaw ay manigance tapalee la def créer ay entreprise mar bi tali maam booy jaawo de koy jàppale ne téeméer ak juróom-ñetti fukk ñuy liggéey ci hôtel yi dee tontu nañ seen i ngàttigee patronat ba waaw ba Birane Ndiér Ngom nee na patronat bi nee nañu deux cent cinquante milliards lañ perte ce faux gis ay patriote lañ waaw dañuy jël hôtel yëpp di koy jokkoon gouvernement évidence yéene kaay na patriote bi tey mooy Harouna Dia ah, waaw ngir ceeba nag maanaam doy fa ne autosuffisance waa ji dee lu tolloo tracteur ak fukki moissonneuse ak benn la joxe moo gën critique yéene kaay kesi Sénégal génnee a joxe valeur ay millions matériel quatre millions direct news de katik Sénégal kay ah daal di ngay woo sénégalais yëpp ñu jàpp ci xeexu mbas mi waaw l'observateur ne waa FMI de gis a ëllëgu Sénégal de ëllëgu lëndëm sax ah, waaw ci wàllum koom-koom te jamono jooje la témoin yéene kaay nee na Alioune Ndoye de lu tolloo juróom fukk a ñaar ci ay licence presse waaw la jébal nag ay chinois l'observateur ne booy bambara wax na de ginnaaw bañ ne daa faatu booy bambara ne ka wax a lay delloo njukkal ak yooyee bu dul woon Balla Gaye ba léegi ni lée samay rendez-vous kër docteur du ko def léeg si ko yéene kaay ne nit ñi bindoon ne danaa faatu dee ñu ngi jéggalu jéggalu nañ la jéggalu sa jéggalu ñu ñuy ndax njuumte la le tee moo kaay ne en tout cas Macky Sall de waaw dañu leen a junni milliard am ya de mille milliards mat na yàgg na ci xeexu corona gi waaw <laughs> ndaw lu bari junni milliard rek waaye nag ak lu milliards yi bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari moom junni ah mënuñoo fàtte six mille milliards pétrole ba de pétrole bi moom sénégalais yi mënuñu koo fàtte parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree mën na la tëjal